Yen ñep ma ngi leen di nuyu nui ngi leen di sante ma ngi nuyu samay dëkkandoo wa Waadaan gi ak wa lewen gi ndaxte dama ñëw dëkk fii yàlla boole wa waa kër sugu ma ñew fi pap Ndaw yow ak Cheikh Ndaw ma ngi jël nuyoo loxey wa lewen yi di tek seen loxo di leen wax ne maa ngi leen di sante ma ngi leen gëreem ci seen taxaway ak ñom mam jabu sey ñep ma ngi leen sante di leen gëreem ndax yene samay dëkkandoo señ Sidi yow yalla dafa dogal. rôle bi ngay joué ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko man sama sëriñ nga dama lay tiitro waaye au conseil sax bala ñoo def ñaan dañ naan nañ jox sëñ Sidi mu ñaan kon boog yaakaar naa ne ñun loolu suñ fierté la bala ñoo ubbi session bala ñoo def dara dañuy wax nañ jox sëñ Sidi Mbàkke mu ñaan ndax yaram tegginam ak respecté doomi aadama kon book ñoo maa ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay ak man de heure bu ma gestoo gis la sama ginnaaw damay kontaan te Macky Sall ñoo wax mu bàyyi la xel ndaxte politique ñëpp xam nañ ne du sa du sa du sa waye bo wootee ak li ngay dox goudi ak li nga koy doxal goudi ak li nga koy waxal ken waxul ko ko li ngay nas ak li ngay ñaw ken defuko kon bok ma ngi lay sante di gëreum dila di wax ne man sama sëriñ ngay doon bala ma def dara dina laj sa kàddu loma ci wax ma def ko monsieur le maire Abdou mbacke Ndaw ma ngi lay nuyu ma ngi lay sant di gëreum ndax te won nga man ak yeen ñoo massé suma neexon limam damay teud dakaru di nosé diko di lenen mais jombuna lekk dara bàyyi leen ndaxte li ngeen ci daj man daju ma ko li ngeen daj ci parti bi daju ma ko kon boog lépp loo xam ne am naa ko muy sama kaddu muy sama lépp dinaa ko def te financement yii dañuy daje ñu toog ñu waxtaan bu ajee jógee Dakar ba mars ma ne ngeen ñooy aje mars ndax danañu jox suñu cër ñoo ngi lancé président Macky Sall di ko wax Touba am na luñ soxla bëgg naa ñu fal fi ay ministre naa ci directeur waaye bala ma def na laaj nag sama xalaat waaw déedéet moo def na ma laaj ma digal ko kan la ko war a jox ak kan ndax du duñ ko jox ñoo xam ne suñ ko jëlee dañuy daaw moom duñ ko nangu waaw nañ ñu falal ay ministère ak directeur xam nañ waaye bala moo def bala moo def na ma laaj sama xalaat ndaxte man Macky Sall pur et dur laa du nangu kenn di ko nax waaye bu fekkee bu fekkee gañewuñ rek kenn duñ recevoir loolu moom mënut a nekk ndaxte ñaawi gone moo gën abbi gone xale boo fi defar poudre mu dem kër baayam ñun ñii lañ am mooy gone yi. kon boog li am solo li am solo li am solo kon li am solo li am solo ñoo ngi lancé un appel solennel à monsieur le président Macky Sall gis nañ effort yi mu def si jeunesse bi foog ñuy fàttaliku. li fi defoon daaw heure bi président Macky Sall plus de 1000 na génnee lu tax duñ ko wax def ko ci askan wi def ko ci dund def ko ci lépp président li mu def lépp mooy ci dund mooy li mu def ci entreprise yi FONGIP ak yëpp pour jàppale ñi ngi ci Covid bi loolu su amutoon kon réew mi nan lay demee te émédi amoon kon lii gisoon ne ko bu yàgg balaa lii di ñëw kon boog bu ñu wax ne def na waaye def na waaye dañuy yaakaar ñu dañoo bëgg li muy def. ñun waa Touba ñu gicc suñ bopp baax a baax loolu la ñuy wax kon boog li am solo mooy ñoo ngi koy lancer un appel solennel mënuñoo recevoir yenn département yi ak yeneen département yi tey kilifa yëpp a fi daje bu buñ doon def audience du jafe moo ngi nii léegi mën ngeen ko bind fii ñu ngi recevoir du jafe kilifa yi ñoo ngi nii toog Mbacké ngi nii toog le maire de Mbacké kilifa yëpp a ngi toog adjoint maire Touba moo ngi jeunesse baa ngi nii nañ def léegi-léegi fu ñu ñu bind fii liste audience kenn du manqué ndaxte a dem rek ñooy dem kon boog bu ñu wax ni déggoo wuñ wala jubóowuñ luñ ñàkk di jàkk di ñu luñ wàcc ñàkk dégg buñ ne président moo ñu moo ñu war recevoir ñëppay déggoo joxante loxo ñëppay joxante loxo kon boog loolu débat la boo xam ne du débat kon boog président Macky Sall ñoo ngi koy laaj ñoo ngi koy ñaan mu recevoir ñu recevoir Touba wax ak ñoom seet nu mu leen doole mu doole leen loolu laay wax programme bi nga xam ne nag moo ngi koy def ñoo ngi ko ciy félicité di ko encouragé ndaxte dégg na message jeunes yi je yi wax na décortiqué décortiqué na dégg na len moo di mu ngi pourtant tàmbalee posé acte yo xamné yu am solo le conseil spécial Oumar Sow du ma ko bàyyi nuit et jour temps yi bo gisee palé ba forum réunion rek pour résoudre problème moy 450 milliards yi nga xamni daf ko wara a 450 milliards nak buñ ko décaissé te Touba lu mu Touba moom 1 pour yi na fi ñom man loolu laa gëm kon donc loolu mo am solo diko encourager ci politique sociale bi muy def di wax ne ñun ñi takuto nañ Inshallah, chaque mois danañ dajé ci benn kër kilifa ñu xamné nous mbir nit nous du nous ñun ñëpp ko bokk ñun ñoo mëna a joxante loxo nous Sidi Modou wax na dana def Abdou programme ñëw set nous la ñun ñëpp ñu tok nek benn chaque mois Basirou Diagne ak ñeen wa CRA ñu seet nan lañ koy organiser chaque mois ñu dem fenn nous fa nan café waxtaan nous suñ ko nous yi liñ bëgg ko am marqué kon di ah li nga joxe non tey comme comme ni nga ko waxee joxe naa joxe naa ceeb joxe naa suukar loolu jarul sax bëgguma sax di ko wax parce que dafa leen lu muy nuru parce que loolu moom du bëgguma sax di ko wax ci rajo bi tànn waaw parce que social la bëgguma sax nit di ko waxee wala muy doon loo xam ne genre kii la waaye joxe naa loo xam ne peut-être ay xéewal la lu jëm ci suukar ceeb ak ay pat ak jigéen ñëpp ma jox leen muy jeunes yi ñoom ñëpp jox naa leen monde rural bi ñoom ñëpp seet naa kenn kon li mu yelloo ma jox ko buñ seetee ñu des individualité ñi nga xam ni sóoraalu ñoon ñu xool nañ ko nan lañ ko gérer kon nag wax dëgg yàlla jëm nañ le maximum mënuñoo dajal ñëpp jëm nañ le maximum possible ñu jéem xool ba kenn ku ne mën cee gis boppam bu ma waxee nag damay dajal fépp mënuma waxuma dëgg kon boog di santaat président Macky Sall surtout ci liggéey bi nga xam ne moom koy def ci Sénégal di ko wax ne jërul muy jërul muy tiit jërul muy yox yox ndaxte jeunes yaa ngi ci ginnaaw femme yaa ngi ci ginnaaw binaam moom ci ginnaaw ndaxte bu gëstoo rek gis binaam kon